surtout jigéen ñi dama leen indil loo xam ne mais xam nga dama leen ko indil pour que ngeen di ko partager ak xale ngeen jël ko yemale ko si mais avant bon avant may dugg si thème jour bu leen fàtte bu fekkee nouveau nga wala nouvelle si chaîne nga nga abonné wu euh, te bés cloche de notification bi s'il te plaît comme ça vidéo bu ñu dugal nga ngeen ngeen mën ko am aussi euh, seeni commentaire daf may yokk doole mooy li ñuy wax yokk cere doole ñeex yéen a képp koo xam ne tamit am nga question boo xam ne c'est si question wu santé lu jëm si wérgu yaram la boo mënul wax mën nga mu ko laaj en commentaire dinaa la ci indil ay li nga xam ne moom mooy euh, réponse bi jox ay astuces yoo xam ne aussi din di nga ko di dina mën a saafara sa sa sa jàngoro mais tey euh, dama ñëw bàyyi feebar yi ñëw dugal leen si li nga xam ne moom mooy euh, gommage parce que kanam dafa am importance ci nit kanam mooy lépp nit en fait parce que nit lu min njëkk a xool ci nit kanamam la du coup euh, dañ koy dañ koy prendre soin mais jigen ni bu len bu len soxor parfois aussi <laughs> su leen amee seen astuce yu baax yo xam ne xam nga tey xale yu yi en général peut-être dañuy déglu ni commencer nga ne non tey dama dugg ci li nga xamné mom moy mooy gommage ñu ne ah gommage baye mu jall mais yéen dama len di wax muy sa copain muy sa jëkkër téye ko xool xëcc ko teg ko ba mu toog nga def gomage bi ma lay wax tey defal ko ko si kanam bi bàyyi ko mu jël temps def effet kanam bi changé mu leer tuuti comme ça bu leen génnee booy di ko xool nii <laughs> bu leen mer de di siisu mais graaw da ngeen ñu siy xajal surtout yéen marié yi ñu célibataire yi da ngeen ñu war a tuuti ñu dugg fa tamit ibil leen ñu bunt yi bu leen tëj fépp defal leen kanamu alaaji yi mu gën a leer ñun ñu gën a sawar xam nga suñ xoolee te góor boo xam ne dañ ko toppatoo mu ngi cil moo ngi kul yakamtee doon ñaareel yaa ma gën a xam mais bon tay thème bi nek li nga xamne mom moy gommage gommage bo xamne dang koy def ci sa ci sa kanam mu yokku tan bi nes nesi rafet ku eh, ku lo xol xoolaat la ku nek dila la laaj leen ngay diwo fek da nga am say secret yu bax dañ ci ki ci rukk bi ne nak ay amul soxor de da ngeen di partager dina la suma defé vidéo de leen jallale jàllale leen ko ñëpp am si affaire yi ya yaatu na ku nekk xaj na si ku nekk jële sa wërsëg nga mom rek gommage bi mom tay gommage bi ni ñu koy defee yomb na ba par ingrédients vraiment mën nga ko am facilement jë du fruit bo romb rek nan nga ni ngi koy traverser rek xol ko da ko pass ma benn papaye bu ñaw papaye rek nga soxla ak li nga xam mom moy citron diko def sa kanam jëlu ay eh, diw def tip jamba jëlu ken xamul mu indi la ay lolou ñu naan kanamu gaynde yu nekk mu la koy indi dila indi problème bu ko def. defal loo xam ne nii lu naturel la def ko ci sa kanam am benn teint boo xam ne day nice day cool day tollo am benn problème yéen a ngi may ñi nga xam ne aussi dañuy ngeen baal ma damay damay ruube nii rek dañuy def ay produits de beauté yoo xam ne daf la indil après li nga xam ne moom mooy ay taches noires euh, gomange bi aussi soo koy def daf koy daf koy dindi gommage bi nag da jël.

que nga xees que nga ñuul mélange bi soo ko defee sa sa sa gommage dafa dafa baax si si si si sa si sa teint da koy toppatoo da koy defal dindi impurité yi nga xam ne nekk na si sa si sa peau mélange bi dama leen di jox li nga xam ne moom mooy notice bi xam nga tey notice fan yii notice notice laa jël loo wax ma ne notice notice laa jël parce que nit yu bëri duñ respecté samay notice da ngay ñëw def lu la neex man dama à peu près laay bañ a dégg dama bëgg ngeen suivre notice bi la lettre garab notice moo si ëpp importance. gommage bi aussi notice bi moo ci ëpp importance li nga koy defee mooy da ngay jënd li nga xam ne moom mooy sa benn doomu papaay soo amee papaay da doon nag papaay boo xam ne dafa ñor bu ñor ba nga xam ne soo bësee nii après affaire bi dina dina dina toj ak li nga xam ne moom mooy citron sa ñaari doomu citron daa ñaar doomu limon léegi da ngay jël papaay bi nga xooli ko soo ko xoolee ba mu set nga dindi li nga xam ne mooy xoox yi nekk ci biir. so so xare papa bi so ko xoolee nga xal ko ci digg bi amna ay xox yu nekk ci bir ak ay ki yu yu yu wex lolou yeb dang koy dindi bam set bam dess li nga xamne mom moy ñam papa bi ñam bobu nak ngay jël nga nga toj ko so jëlé kuddu sax su fekke papa bi ñor na ni mu waree so jëlee kuddu rek diko diko man ko nga ko ko tojé mélanger ko bam mu doon purée su fekke ki yu tamit nga jël mixeur nga def ko si nga nga nga mixer ko su ko defee pa bam mu doon jus né ba nga am pat bi. Eh, soo def loolu aussi su fekkee am nga benn loo ko mën a toje daal lu set bo na ko def daal de telle sorte ko mu nekk pat nga jël li nga xam ne moom mooy sa patu papaay def dang koy def na fu set soo jëlee patu papaay boobu nga jël li nga xam ne mooy sa ñaari doomu citron ñaari doomu limon yi nga nga dindi xooxu limon yi nga jël kii bi nal ko si jus bi rek nga soxla jarul eh, affaire yi jus bi nekk noonu xaw ma nu mu tudd jarul nga ko si xoos di ko ci defaale da ngay bës rek juste jus bi soo teeku ci biir ndoxu limon bi kese nga soxla nga jël mélange wu sa euh, patu papaye wala purée de papaye la koy tuddee <laughs> nga jël loolu mélanger ko ak li nga xam ne moom mooy citron bi léegi nag euh, ni nga koy defee euh, indication bi ni nga xam ne moom nga koy defee pour pour ce qui da nga koy def trois fois par semaine trois fois par semaine yooyu tamit doo ko def naaj bu tàng da ngay bàyyi ba ngoon. le soir et mo kër gi sedd nga mën nga toog ba ay 18 huit heures defoo dara fekk li ngay war a def yëpp def nga ko dix heures nga jël sa temps defal sa papay soo ko jëlee dëbb ko ba mu nooyi mooy nga toj ko ba mu toj nga dagg sa ñaari doomu li moo pàccal si biir mélanger ba mu saf 18 huit heures nga def toog ràcc ñëpp toog nga def su la neexee defal waa kër gi yëpp amul danger si kenn ba mu des liir yi dégg nga <laughs> defal ñëpp def defal sa jëkkër ngeen toog couple nga teg ataaya bi di bàyyi affaire bi def effet noonu nga koy def rek mu yomb <laughs> su fekkee far nga am man nga ko dem sàcc seeti tamit ngeen def ko balaa nit ci di comprendre nga dem ñibi bon da ngay jël patu li nga xam ne mooy pat bi nga am après mélange li si mélange papaye ak citron bi nga jël ko nga kii ko si sa kanam nga diw ko si soo koy diw da koy tas ko si taf mu mel ni genre masque nga diw si sa kanam ba mu ñëw si sa si sa baat bi soo diw nii quoi da ngay diw ba diwaale nii si sa cou bi parce que tamit tay défense sa fi fi ñew amna mu mel lolu aussi ken kenn soxlawu ko dal ken préféré wu ko du coup da ngay da so gisé kuy maquillé wu sax da ngay diwaale fi pour du coup sooy def gommage bi da nga koy jël mais ni ci dañuy ñew gommage fi su ko defee fi lis yi ñagas ni yi ñagas do xam do comprendre nu muy démé non ko gis da la koy rusa expliquer mais grawul man maa fi sen gaay la le maa leen koy wax amuñu problème du coup soo ko jëlee nga kii ko nga diw ko si diw ba si sa cou bi nga bàyyi soo defee mélange bi nag da ngay toog trente minutes nga bàyyi ko mu agir ba wow si sa kanam bi noonu trente minutes après trente minutes yooyu nga jël li nga xam ne moom mooy eau tiède billaahi xama nga sedd nekk waxuma la nga ragal ndox ba tax nga dem tàngali ndox pour raxase ko sa kanam bi eau tiède waxuma la mu sedd waxuma la mu tàng tànkal robinet ba direct nga ñëw wala sa bouteille ndox bi nga tegoon direct ñëw mom nga koy raxasse mais avant ngay def masque bi aussi da ngay raxas sa kanam ba mu set da koy raxas nettoyer ko ba mu set soko raxasse ba mu set nga defar sa mélange après nga nga diw ko aussi soko diwé aussi nga baye 30 minutes ba mu agir nga raxasse nga sëlmoo raxasse sa kanam ak fi masque bi amul yeb ak mi nga xamné mom moy eau tiède so paré nga wut sa serviette bu set. nga nga fompe ko sa kanam après nga nga diw nga xool sa yaram bi tellement peau bi peau bébé lay niróol affaire bi day nekk douceur boo xam ne ouf sooy def nii sa bopp nii sax da ngay kontaan parce que gommage bi moo efficace efficace la def man xam naa li ma lay wax parfois sama copine yi dañuy ñëw nii mu dóoral leen si leen ma leen jël xam naa man la ñuy faale wu ma leen ñoom du coup nag soo koy def da koy def trois fois par semaine gommage bi du fekk da ngay def benn yoon rek bàyyi euh, compte ingrédients yi moom nakariwu la am bul ko tayal trois fois par semaine soo xoolee sax soo defaree sa sa sa pâte bi mën na des après nga garder ko au frais pas nga congeler ko mais mën nga ko def au frais teg ko ba

xoolil pomme de terre bi rek trancher ma ko trancher ko ay rondelles nii soo trancher rondelles yi del jël sa temps dangay wut nag sa 15 minutes yoo xam ne defoo dara amul kenn di la woo ngay tëdd dara téléphone yi nga tege ko de côté jël li nga xam ne moom mooy sa pomme de terre bi nga raxas dagg ko en rondelle soo ko danga koy xoole ba pare nga def ko ay tranche nga jël ko laal ko si sa kanam bi ko tegee. yaay xool ni ngay positionné woo ba mën leen teg ñoom ñëpp ci sa kanam bi tegale ñi partie yi nga xam ne yëpp fa la gommage wala nekk nga tëdd euh, laal ko sa kanam bàyyi quinze minutes parce que ndox boobu di génn si si si pomme de terre bi dafa dafa baax si si si si si dafa dafa dafay defar sa mooy jus bi bi génnee ci ci ci kiiwu pomme de terre bi soo ko daggee noonu di nga gis benn genre liquide boo xam ne soo ko defee sa yaram tuuti day weex loolu dafa baax si yaramu euh, dafa baax si yaram su fekkee ba tey da ngay am ay difficulté nga tëdd di jël pomme de terre bi di ko lal parce que xale yi parfois duñ la si bàyyi surtout nos mamans yi nga xam ne da ngay yor ay doom duñ la bàyyi si temps boobu mën nga jël li nga xam ne moom mooy pomme de terre bi soo ko xoolee nga kii gratter ko nga gratter ko wala su fekkee am nga loo ko mën dëbbe ba mu ba mu nooy sans pour autant nga dëbbe ko ak gën boo defoon kaani wala dara loo xam ne mën nga écraser pomme de terre bi pomme bi nag du buñ togg pomme de bi

ñoo may jox li ma soxla parce que moo may permettre may jog di sonu di def di recherche mais suma ma gisul benn commentaire damay tayal dama naan ken feebarul ken soxlawuma ma damay dem teud di noyal xam nga mais commentaire et aussi euh, bu len faté di partager vidéo yi aussi allez bye bye je vous donne rendez-vous si euh, benen émission assis agrément naturel si yeli TV bye